ji buñ koy tudd colonel bii nga xamante ni mooy Souleymane Kandé daan na ciy béy nag aw laajte wu yaato yaato yaato mooy acteur majeur de la paix en Casamance moom colonel de l'armée bii di Souleymane Kandé loolee moo tax réew mi di daal di koy def homme de l'année journal bi nee na commandant de la zone militaire numéro cinq def na ab liggéey nag bu am solo ca diwaanu Casamance ndax nag fi nga xam ne mooy base rebelle yi yëpp nag moom colonel bi maanaam moo ko démantelé ba pare nag daal di koy récupérer andi nag ña nga xam ne daal ñoo fa dëkkoon jamono ji jàmm ja maanaam good fine ca base rebelle ya nga xam ne daal maanaam rebelle ñoo ko akimoo woon daal di koy ngar dajo jamono ji nag buñ fa jugee gàccaa nga laama colonel de l'armée Souleymane Kandé ba tey ci biir journal bi di réew mi quotidien nee na bu ñu dëgg colonel Souleymane Kandé est un soldat courageux originaire de la région de Kolda maanaam ma ngi fekk baax fi nga xam ne mooy Kolda yàggutoo Njaay dañu ko daal di def na commandant des opérations spéciales njiitu réew mi di Macky Sall moo ko ko def journal bi nee na colonel Kandé def boo xam ne bu mucc ayib la tax na nag bi bi maanaam jàmm ji jamono ji law na ci diwaanu Casamance te ña nga xam ne jëlee woon nañ leen seen i gox te ñu andiwaat leen fa seen xel dal na bu baax a baax yéen a kaay gii di Walf Fadjri ñu koy fekk fa opposition bu Sénégal ñoom nag dañoo mer ba maara de taal yi ndax nee na ñu nag fichier électoral bi maanaam dañu ko laaja laaja laaja laaj ba sonn ñu lànk kandaare bañ leen koo jox ñoom nee nañu tey ji wala suba di la ñu bind Antoine Diome ministre de l'intérieur yéen a kaay gii di Vox Populi xëy nag di ñu xibaar mbir moo xam ne doy na waar génn xeetu doy waar goo xam ne fu ko waay natt daan bay passé benn village bu tudd Poul Dagne nekk ci commune bu Notto Diobass ci région de Thiès foofe nag giraawaal yi moo fa musiba ma bu kumba ndax ña nga xam na ñëw fa dëkk ñoom daal nee nañu ku faatu ca dëkk boobee duñ la fa denc bu dee ab géwal nga maanaam dëkk boobee daal bu dee ab nga moom boo faatoo kenn du la denc sa seeni armée la coow lu rëy rëy jamono ji nag moo fa am ndax dafa am benn maire boo xam ne ab géwal la dafa faatu waa dëkk ba ne ko duñ la fi denc jamono ji nag coow nag daan dugg dëkk boobee Gueye moom nag ma ngi dànkaafu député yi nga xam ne ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar ci lu jëm ci projet de loi bi nga xam ne dañoo bëgg ñu criminaliser borom ñaari tur yi Mame Makhtar Gueye nee na nag jamono ji na Sénégal yi ubbi seeni bët daal di vigilance yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien na ndax yàlla train express régional bi ni ki démb dañu koo daal di inauguré waat bi mooy ñaari inauguration yéen a kaay gi nee na njiitu mi di président Macky Sall

nee nañu nag teer bi ci boppam du priorité maanaam nag farata gi nag feneen la nekk ndax jamono ji Sénégal yi dañoo sonn ba maara de taale Aminata Lo Dieng nee na teer bi catastrophe la pur la banlieue la ko waral nag bokk na ci yow nan nga mën a jëlee ay milliards milliards milliards defar ci nag ab infrastructure boo xam ne yow génnul sax jam ñaajo ki loole nag yàq la ki nga xam ne nag mooy Aminata Lo Dieng nee na njàng meeg njàngale mi ma ngi nii ci Sénégal baaxul santul wàllu wér gi yaram ke feebar doo faju ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi maanaam ñoo ngi tamba yombalu amuñu liggéey jaaxle ba pare tamit dund gaa ngi nii cher ba maara détaillé ñu ñuy wax nag waxu teera yéen kaay gii di lees Macky Sall moom nee na nag ma ngi doxal nee na nag buy demati fi nga xam ne sax mooy jam ñaajo maanaam teer bi lay jël yéen kaay gii di l'observateur nee na lu jëm ci wàllu phobie yi jamono ji nag ma ngi mel ni tulleeg màlle ci réew mi nee na guddeeg ñaar fukki fan ñaar jàpp ñaar fukki fan ñett ci weeru décembre am na lu jege juróomi milliards ci ay phobie yoo xam ne teg nañu ko loxo journal bi nee na ñaar fukki fan ak ci weeru décembre lu toll ci